maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Boubacar Samb di candidat à la mairie de Pikine di acteur politique dëkk Pikine juddoo Pikine màggee yaroo donc man tey maay ganu premier numéro wu émission bi. ndax am na ay secret waaw secret moom ñëpp ko am. bon secret nak, secret la du lo partager quand même choisir action que <laughs> bi may raconter je sais pas c'est drôle ou pas mais je ba courant bi la ci fare ba prudence bu mag maga maga a mag a mag mag laa ci laa ciy demee man daal dañ doon soirée temps wu euh, prise la débranché di may bandi ndax voilà gars yaa ngi fii xale jigéen soirée bi neex ak bëgg gaaw man fil bi rek mais si la soirée bi ndax mës naa fen su may parents bon du ma ko tuddee fen mais li ma ko mën a tuddee mooy mës naa nëbb sumay parent parce que dañ ma tere woon taawu xale la loolu ñu ngi woon école primaire may ànd ak ay géwél alors si géwél yooyu nag euh, euh, ñu si bëri seen kër yi dañ daan tëgg sabar may ànd ak ñoom ñuy wër di simb di wër di dem ci ay ay xew di fecc alors loolu nag sama waa kër tere ma ko mais malheureusement ma ko woon ma ci doon continuer di di ci di ci dem carrément euh, fekk ni tout le temps dañ ma doon wax bàyyi lool bàyyi loolu bàyyi loolu mais euh, dama ko daan def si sama ginnaaw waajur ba biñ si lañ ma si téye nag ndulli ma si ndulli yu metti ba loolu sax moo indi woon li taxoon ma demoon parcelle parce que dañ ne woon buñ ko bàyyee Pikine du jàng donc noonu lañ ma fi jëlee rek yóbbu ma parcelle combat bi ma def lo xamanteni moma gëna neex et je suis fier de le dire moy xex pour Sénégal ndaxte en 2012 Abdoulaye Wade dafa bëggoon un troisième mandat alors ñun nat ay xalé ñu daal di bañ xex ba loolu mooy indiwoon suñu emprisonnement euh, Abdoulaye Wade tëj ñu kasso mais xeex boobu noonu ñu xeexaloon tey pour Sénégal pour que l'alternance amaat tey euh, doon na xeex boo on l'a fait avec fierté on l'a fait avec beaucoup de courage. li may rêvé mooy am entreprise événementielle bu gën a ci Afrique voire même dans le monde. illégalement man na dox moom man ci ay illégalité xanaa mu choisir action yes you can wala c'est trois mots bon benn daal xam naa ko love xam naa ko xam naa tamit behind ah oui mus naa tromper nit koo xamanta ni bëgg naa ko trop ndaxte comme lu ñuy wax rek ay xale lañ bëggante mu nekkoon xale bu jigéen boo xamante ni dama ko bëggoon sama famille bëgg ko alors euh, ñu sekkoon nag lu bëri partagé tamit lu bëri mais comme yi fu guerrier rek laa doon def benn jour mu jàpp ma may message benn xale bu jigéen malheureusement euh, ndeysaan ci la ma bàyyee te loolu. tromperie laa ko mën a tuddee même bu fekkente ni voilà c'est pas du tromperie mais man jàppee naa ko tromperie parce que tolloon nañ foo xamante ni loolu warul woon mën a am sama diggante ak moom. je suis très fidèle si amitié comme ci mbëggeel. ah kooku bu boobaa Mbathio Ndiaye laay wax. parce que Mbacho Ndiaye nek na jigen bo xamante euh dama retrouver wu ben personnalité ci mom moy courage parce que man nit bo amé courage rek da nga may neex té Mbathio jall na tey jii nii ci ay difficultés ci ay situations yo xamante tay elle a su garder la tête haute euh, xam ki mu doon euh, teewu ko mu ngi avancer dans sa vie ah sama <laughs> pire rendez-vous dama mës invité benn xale bu jigéen bon moo ma sànni invité ne ma dama bëggoon ñu giseente resto alors ma ne ko pour ñu jël pot ñu jël po ma ne donc voilà loolu warul metti ma ne ko ok amul benn problème mu jox ñu ñu joxante rendez-vous malheureusement xale bu jigéen bi ñëw indi sa sœur indaale keneen muy sa cousine te nag xale yi dañoo xiifa xiifa xiifa xiif ku ci nekk commandé sa palaatu ginaar tu t'imagines alors man maa ngi commandé sama benn voilà boisson ak benn jus naturel laa commandé woon parce que pour la ñu waxoon xam nga pour ma naan man maa ngi leen di xool rek ñoom ñuy lekk heureusement li yàlla di def yàlla suturaal ma bés boobu ba nga xam ni amoon naa as tuut boo xam ne mu ngi sama poche ba ma mënoon fay addition bi mais daal li ma leen mën a wax yéen xale yu góor yi sama morom yi mooy képp ku la ne nañ gisante rendez-vous def leen attention parce que xale yu jigéen ñi dañoo xiif de dañoo xiif trop. la mort ku ragal dee la parce que xaw ma exactement lan laay fay fekk ji. du caagi du damay def lu bon wala damay wax lu bon déedéet man taalibe tiijaan laa maa ngi wérd maa ngi julli maa ngi jaamu yàlla duma wax lu ma wóorul waaye dama ragal dee ndaxte xaw ma exactement ëllëg lan ak lan moo fay am